fi ñu waxee yéen mooy ki nga xam ne mooy naatiq rasmi ci xalifab Njaasaan moom mooy mooy wax ci seen tur moom moom sëriñ bii mooy wax seen tur xalifab Njaasaan bi di alxaaji maam bu kunta yàlla na ko yàlla sàmm te wattu ko moom mii mooy wax ci seen tur mooy seen porte parole daal. délégation bi nag ni ngeen ko xamee kon euh, sëriñ maam seex Mbacke mi nga xam ne moo jiite AIS e moo ko moo ak ñoom mën nañu moo leen dalal andi leen. ci délégation bi sëriñ Babacar Cissé ñëwoon na fi mosoon na fi xam ngeen ko bu jaamal moom mi nga xam ne mooy mën a bu jamhiya euh, bu bu alxidmatul euh, islami li xidmat tasawuf mi ngi ci jotaay mi ngi ci mi ngi ci mbooloo mi. alhaji Mouhamed Kounté it bu Ndiassane moom it mi ngi ci délégation bi kon ñii daal ñooy ñi nga xam ne tey ñoom lañ dalal tey ñuy gan ñu tedd nañ ko waxee léegi ñu leen di dalal fii jàmm di leen wax ahlan wa sahlan wa marhaban kon daal xam naa du ñu guddal ndax waxtu mi mi ngi dem te xam naa sëriñ bi li mu indi ñun ñëpp bëgg nañ koo diglu ba jariñu ci kon mbokk yi ñu ngi leen di sant bu baax ci teewaay bi ñu ngi leen di sant bu baax ci dikk gi ndikk ànd ak ñun jotaay bi ndax ku ne xam na ne jotaay bi euh, nañu koy defee ci barab yu bari ci Njaasaan ak ci mbooleem turux yi nekk Sénégal yëpp noonu lañ lañ ñëwee fii defee ko fii ci Darou Moukhty kon sëriñ maam Cheikh ñu ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal yàlla suñu borom mu kàttanal dëggal leen ba liggéey bi nga xam ne yàlla suñu borom teg na ko seen loos ci kilifa yi teg teg leen seen kanam ngeen ngeen war leen a jiite ci wàllu googu suñu borom defal leen ci tawféex ak mbokk yi ngeen ko àndal yépp kon ñu ngi leen di sant leen gërëm kon sëriñ bi ñu ngi jox sëriñ mm, abo sëriñ bu Mouhamad Kunta ci thème bu am solo bi nga xam ne war na ko andi thème bi nag mooy mafhumul jihaad euh, fi tasawuf mooy jihaad daal ni ñu ko dégg ci yoonu tasawuf ku xam na ne jihaad moom ñu bari am na déggin yu bare bëri waaye nag ci yoon tasawuf yi nga xam ne ku xam na ne ak salal rek ak ci diine ci anam nañ ko noonu doxalee rek noonu lañ koy doxalee kon nuñ koy dégg ci wàllu googu loolu loolu sëriñ bi bëgg waxtaani kon sëriñ bi ñu ngi lay dalal bu baax euh, wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu alhamdulilahi waxdahu wa sallallahu wa sallama ala xayri xalqihi xabibina wa shafiina wa maljaina ila allah سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سلك نهجه إلى يوم الدين ورضي الله عن مشايخنا البررة الذين ضحوا النفس والنفيس في سبيل إعلاء كلمة الحق وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الباب المفتوح صلاة تعجل لنا بها فتح باب الفرج والفتوح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إخواني الأعزاء أيها الحضور الكرام أيها الأساتذة والشيوخ محترمون asalaamualeykum wa rahmatullah taxiyatan miluha almaxaba walmawadda waluxuwa min qalbin yakinu lahu lakum هذه الصفات أو هذه العناصر التي ذكرتها من قلب أيضا يحمل معه تحيات min ixwaanikum alkuntiyiin fi njaasaan wa fi ndànq wa fi ndeer wa fi sanc buuna wa fi guyat wa fi saalum haulaai alladina lahum maakum rawabit uxuwiya wa diiniya wa wataniya wa ala rasihim alxalifatu alaam liltariqati alqaadiriya alxaaji maam bu Mouhamed Kunta atala allahu baqaa wa atala baqaa jamii zuama addiiniyin haula alxulafa rachidun alladina xamaw ma zaalu yaxmuuna lana hada addiin alxanif wa hada albilad almaxbub mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullah gannaaw bi nu barkeloo ci kàddu yooyu ci wa xiyaaram di julli ci sayyiduna muhammad alayhi salaam ginnaaw bu ñu santee borom bi subhaana di leen nuyu ci kàddu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu wax ni nuyoo la bu mu ngi jóge ci xol boo xam ni ëmbal na leen lépp loo xam ni mbëggeel la cofeel la yéene la ju sell waaye it jóge ci ay xol yoo xam ni seeni bokk lañu ci wàllu pas-pas ci wàllu diine ci wàllu bokk réew mi ci wàllu deret muy famille boobu ñuy wax ahlul kunti te toogee foofu ci Njaasaan ak yeneen dëkk yi nga xam ne tudd naa leen ca bopp ba alaaji maam bu Mamadou Kunta nga xam ne moom la yàlla tey jox yan bi mu taawul nu ko yal na ko yàlla yàggal ci loxoom te mu ànd ak wér di leen nuyu leen ziyaara waaye di nuyu di ziar Muhammadul Muntaqa alxalifatul aam li di ko nuyu di ko ziar di ko joxit nuyoo mbokkam doomu ndeyam doomu baayam di alxaaji maam Muhammad di nuyu Sëriñ Abbas Mbakke mi yàlla dénk tey dëkk bi ak njaboot gi di ko ziyaar bu baax a baax ñooñu ma tudd ñëpp maa ngi sàkku seen ñaan waaye di leen ñaanal yàlla yàggal leen fi lool te mu ànd ak wér ba naal yi nga xam ne naan nañu ko ngir àggale liggéeyu mag ña yàlla may leen ñu àggale ko foo xam ne dana kawe njort te yàlla taas ñu seen barke yàggal ñu seen gannaaw mbégte la ci ñun ñu ñëw fii ci xadara bu tedd bi di xadara bi nga xam ni dama wax ni ñun bu ñu fi woowul woon sax wareef la ci ñun ñu ñëw fii teg fi sunu tànk ziyaara sàkku dellu rawatina nag euh, mbokk yu baax yi nga xam ni tey ñoo boole seen bopp ci kuréel gi ñu tuddee al wafa te baatu wafa rek dafa doy ngir junj la nga xam ni ku dib julli rek xam nga la mu ëmb wa awfu bil ahdi inna al kaana mas'uula kon ñooñu tuddee wafa dama wax ni gàcce ngaalaama xam nañu tur bi lu mu wund moo waral li jataay yu tedd bi waaye ñu am ànd ci ak AIS di al jamiyatul islaamiya li xidmati tasawuf may leen ñoom tamit macha allah te sunu mbokk mam Cheikh Mbacke mi jiite ko ñu jóg rek ngir aar li nga xam ne moom lu fi mag ñi liggéeyoon bay ci seen waar ci wattul leen ko waaye wattul ko sunu bopp tey day sunu wareef kon ñaari kuréel yi yal na yàlla yàggal seen taxawaay te yàlla dolli ci barke waxtaan wi xam naa ni waxtaanu nuyoo lay doon ndax bu ñu ne al jihaad fi al jihaad fi tasawuf wala maana al jihaad fi tasawuf jihaad nga xam ne tey booy na nopp yi foo toll ñu ngi naan jihaad jihaad ay jihadistes yu kenn xamul tasawuf ci boppam naka la ko déggee ban sens la ko jox ban maanaa la ko jox loolu lu am solo ndax dañoo toll ci jamono joo xam ni ku ci nekk war ngaa wax ak sa njaboot te ñu njabootu tasawuf ñoo mën a wax ak suñu bopp muy ñun ak yéen waxal ak ñeneen ña nga xam ne xañ na dégguñu tasawuf ngir ñu xam ne tasawuf léppam yiw la léppam yërmande la léppam ak bokkoo la ndax boo delloo ci njàngale mag ñi bu ñu lay xamal baatu tasawuf ci boppam am na mag moo xam ne da koo tënk tënk koo xam ne dana doy ñu delluwaat ci yeneen taarif yi mu ni suuf yi man safa qalbuhu lillah kon tamit at tasawuf mooy as safa safaul qalb lillahi subhanahu wa taala ne tasawuf daal mooy xol bu set boo xam ne benn tilim nekku ca waaye ëmb lépp loo xam ne rek yàlla la subhanahu wa ci mbaax ci jub ci yërmande ci respect ci bokkoo ci yaatal ci muñalante ci solidarité ak yeneen yi nga xam ne tudduma ko te lépp diw yiw dama wax ni tasawuf loolu la ëmb moo tax su sunu nekkoon nanu waxtaanee tasawuf ak dégg na mbaa gisam gisinam ci wàllu jihaad day nekk waxtaan woo xam ne du ma ni yomb na waaye nag lu neex a waxtaane la to it lu neex a dégg la ndax boo delloo ci islaam rek di nga daal di mën a dégg ni ndekete xaqiqatul jihaad mooy dégg bi nga xam ne moom la ko tasawuf jox ma ci indi benn hadis sayyiduna muhammad alayhi salaam bi ñu jógee ci ghazwatul badr ci fukki fan ya ak juróom-ñaar ci weeru tedd wi ñu nekk di shahru ramadan al mubarak ak namu mu ak marma tàngaay wa ak ngànnaay yu néew ya ak soldaar yoo xam ne seen lim néew na boo koy xayma ak ñi ñu dajeeloon di waa Quraysh ñu jóge woon Màkka waaye ànd ak loolu lépp ñu muñ ko ba bi ñu agsee defe ni mbir ma jeex na alayhi salaatu ni leen lii ngeen jóge de di xeex bi mooy jihaadul asgar maanaam mooy jihaad bu ndaw bi ñu ni ko dafa am beneen mu ni ko mu ni leen waaw mooy jihaadu nafs maanaam fexe ba bakken bi nga moom ko ba jëmale ko fa ka borom bi soxla subhaanahu wa loolu kon moo tax ma ni kon da koy tasawuf boo ci delloo rek ci wàllu jihaad da ngay fekk ni islaam la moo tax it dinaa barkeelu it benn taarif ci mag mu baax mu ñuy wax Cheikh Sidil Mukhtar al Kunti xam ni mu ngi tëdd fële ca Mali ca barab bu ñuy wax bu Lanwaar nekkoon fii ci xawd ci Mauritanie diggante Mauritanie ak Mali dafa liggéey boo xam ni tax nañu daan ka dàkkantele cheikhul mashayikh jombul jàngkat yi fi ne am nañ ci tuuti xam-xam taalif na ay téere yu bari bokk na ci alkawkabul waqaat waaye bokk na ci téere bi nga xam ni samaam Cheikh Ahmad Bamba radiallahu taala anhu joxoñ na ko muy nafxu tayb fi salaati ala nabi alxabib ca masalikul jinaan ba muy wax ñi nga xam ne bind nañu ci wàllu salaat ala nabi indi dalaalu xayraat daf ci boole nafxu tayb fi salaati ala nabi alxabib ni nag Cheikh Sidi Muxtaar Kunti moo ko taalif waaye déglul la mu ca wax nga xam ne mag ñi yàlla na leen yàlla fayal dañoo laxasoo woon ay goj dañoo benn woon dañoo bëggante woon ku nekk daan yëkkati sa morom moo tax it yàlla yëkkati leen mu ni tuuba liman yaqra'uhu mu'abbida li annahu yakufuhu alhawla gada loolu dama wax ni ku dul nitu yàlla doo ko wax ci sa mbokk am borom tuuba nii nafu tiib ne texe ñeel na koo xam ne saxoo nga di ko jàng ñu ne ko lu tax mu ne ndax ëllëg da lay fegal tiitum yowmal xiyaam doo bokk ca nattu ya lii su ma ko indee damay wane diggante bi ci naka démb la woon donte it Cheikh Sidi Muxtaar al Kunti ak maam borom Touba bokk nu jamono ndax Cheikh Sidi Muxtaar mu ngi ganee àdduna 1730 génn àdduna 1811 waaye nag. mag ñi ñoo bokk jamono ci baatin ci baatin la ñu bokkee jamono moo tax mag mu ci wax mbaa mu jëf rek nga gis ci meneen mag ma ak jëfam ndax lépp yàlla la taala cheikh wax ni altasawuf tariqun ruuxaani taslukuhu alqulub fa taqtauhu bil afkaar xasaba al aqaid wal absaar kon lépp dafay dellu ci xol ni tasawuf yoon la wu ruuxaani la maanaam ruu moo koy dund moo koy yëg te xam ngeen ni ruu mbokk yi mooy lii tax nit nite nit war a mën a toog xilaafa gi ko yàlla jox ba mu ne inni jaa'ilun fil ardi xalifa waaye bu doon jëmb ji rek du ñu tax ñuy wax waaye ruuga bu dundee nag mooy xam xilaafa gi valeur ba mu mën a toog toogaay booba mu ni kon noonu la dem waaye nee na a tasawuf mabda'u tasawuf boo koy xool ne ci ñaar rek lay tënku benn bi mooy isticmaalul aadaab wal axlaaqi al ma al xalq maanaam lépp loo xam ne teggin la lépp loo xam ne ay jikko yu tedd la ne dafa war a feeñ ci yow jëm ci say mbokki doomi aadama ma al sax la wax xalq boo ko déggee da ci sens bu gën a yaatu nit da cee bokk waaye lu dul nit da cee bokk ndax lépp yàlla bind ba ci bàyyi ma bi ameel nga ko àq ci na ko war a toppatoo ba ci environnement bi ngay dund ameel nga ko àq ci noo ko war a saytoo te lii lépp alayhi salaam daf ko jàngale woon moo tax mag ñi bi ñëwee it di indi seen yoon seen yoonu njàngalin foofu rek lañu tënku li tax ma ni nit bokk na waaye ku dul nit bokk na environnement bokk na alayhi salaatu wasalaam su Musaa yeble xare ñuy dem di xeexi bu leen daan def tawsiya wala wasiya leen daan wax naan bokk na ci li mu daan wax bu leen rey xaleel bu leen rey màgget bu leen rey jigéen mu ngeen àggee cib dëkk fekk fa koo xam ne bokku leen diine moo xam chrétien la wala juif mu ne ci roqam di jaamu boromam bu leen ko bund xataal romb leen ko ngeen dem xoolal bi doxalin xoolal bi yëgin muy leen waaye bu leen dagg it garab bu ngeen dee xeex rawatina na garab guy meññi environnement dugg na kon ki nga bokkal diine dugg na waaye ki nga bokkalu diine nga ci li nga xam ni moo tax sa nekkin mën a tedd ci kaw suuf muy ndox mi muy garab yi muy suuf si muy jaww ji loolu lépp dafay bokk ci waree fu jullit pour mu saytu ko bàyyi ko xel ahlu tasawuf ñëw daal di nag teg foofa seen tànk ñoom bi kon gis nga mu amala bi maanaam jëflanteeg nit ñi ak képp koo xam ne rek yàllaa ko bind bi ci des mooy munazalatul axwaal maanaam di jéem di jege sa boroom ma alxaq subhaanahu wa axwaal yi mooy nga di ko dund li sa xol di yëg te alquran def ko ci xadis def ko ci njàngale mag ñi def ko ci loolu nga jéem di ko dundal su ko defee ngay am yëkkatiku di xaw di sori màdd waaye di gën di jege sa borom su ko defee ñaar yi nga xam ne nag ñoom la la yàlla booleel muy yaram wi ak ruu gi dañuy mën a am seen dundin ca na mu ndax islaam wasatu yàlla maanaam dafa digg dóomu bul alag yaram wi waaye ruu gi bu ko alag kon bu ci nekk am na cër ci yow wala tansa nasibaka min addunia wa axsin kama axsana allahu ilayk moo tax bu ñu delloo ci alquran sama borom di ko jàngalewaat ci suratul asr ba mu ne bismillahi rahmaani rahim wal asr inna al insana la fi xusr gis nga li mu ca teg illa allazina amanu wa amilu salihat amanu wa amilu salihati mooy tax nit ki dundam mën a jag ci kaw suuf waaye it mu mën a jooxe mission bi nga xam ni mooy xilaafatuhu ala hadihi al basita toogan gi mu toogal subhaanahu wa ci waxin fii ci kaw suuf loolu ci taarif bu gàtt rek mën na ma wax ni mooy tasawuf donte dugguma yi ci yenn détails yi ak xóotal yi ndax xam naa ni waxtu wi xat na bu ñu xamee ni tasawuf ci boppam ci jamonoy seyduna muhammad alayhi salaatu wasalaam donte ñu ngi ko doon dund te tur amul woon waaye amoon na ba am ñoo xam ne sax dañ ne tur wa foofu la jóge ci yenn jàngkat yi ñu ni mu ngi jóge ci ahlu suffa ahlu sufa di ñoo ñu nga xam ni yàlla daf leen nattoo woon ñu néew doole lool ci wàllu am-am waaye bari doole loolu ci wàllu pas-pas dëkke woon ci jàkka yi Seydina Muhammad alayhi salaatu salaam ak seen pas-pas waaye nañu dëddoo woon àdduna ak nañu wute woon seen boroom am ñu wax ni sax tasawu foofu la jóge ci suuf fa googu waaye lu mën a xew mooy yonte bi alayhi salaatu salaam mooy cheikhul fa mën nañ ko tuddee ni mooy sëriñu ahlu tasawuf kon képp ku yor tariqa Seydina Muhammad mooy sa sëriñ moo tax kon tasawuf mënta ñàkk boo demee ci téere bu ñuy wax alxuniyatu li taalibi tariq alxaq cheikh abdul qadir jeylaani moo ko taalif yaakaar naa ni boo ko xoolee ak safinatul amaan bu ma amaan bu maam borom tuuba dinga fekk nañu ànde bu baax a baax damay wax ne mag ñi benn lañu nga xool Bagdad ak siècle ba cheikh abdul qadir jeylaani dund ak maam borom tuuba fii mu ne senegal ak siècle bi mu dund xoolal distance bi ci wàllu kilométrage waaye nga xool distance bi ci wàllu jamono waaye li ma wax sànq rek moo di ni mag ñi ñoo bokk jamono ca baatin la ko bokkee te du dañ ba mukk nag moom jéeri mu ni am sëriñ nee na mënta ñàkk nee na nit ne ba yàlla sàkkee jamono ba jamonoy toxu jamono joo tollool da nga fa fekk saaxib wa masxuub da nga fa fekk taabi wa matbuu da nga fa fekk cheikhun wa murid ne loolu yàlla def mu jële ko ci diggante borom bi subhaanahu wa ci ba mu nekkee cheikhu sunu maam aadama ba jàngal ko la mu koy jàngal wa allama aadama al ak kullaha bi mu ko buggee def sëriñu malaaka yi daf leen laaj ndax xam ngeen nangam ak ñu ni ko xamuñu ko mu ni aadama am bihum bi asmaihim aadama jàngal malaaka yi du seen sëriñ mu wàcc ci kaw suuf tumuranke dab ko wi ndax la woon àjjana amu fi xiif na mar na war naa sol yére war naa nelaw war naa nàngam ak nàngam xamul naka la jibril wàcc jàngal ko ko jibril nekkaat sëriñam te fee ma nga nekkoon taalibeem maam Adama jàngal ko ay doomam siis ñoom seen muy dox ba ndëgëni ba ci sayyiduna muhammad alayhi salaam ni ko ko jibril jàngale waate alquran ci shahru ramadan waaye moom it mu jàngal ko rakkam ja Seydina Ali mu jàngal ko Xasan al Basri tasawuf daal di juddu ku ne tànk nag ca mbalka moomu nga xam ne moo gónge ko ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ñëw ci Seydina Ali ba ci Xasan al Basri branche yi daal di génn nag fu nekk nag ku nekk ba nga ca jëlee am noo ko tudde moo xam ne Cheikh Jeyli nii kon taalu beeg sëriñ mënta ñàkk ne akay ah lu dul ci lu néew a néew a néew mu jukki ci ku mel ni waysul qaran nga xam ne yàlla ka baaxe woon yàlla sol ko te jaarul cib sël nee na mën naam de waaye nee na lii ma la wax nag ni wutub sëriñ ànd akub sëriñ nee na mooy al aghlab mooy mi gën a not nee na mooy al ahsan mooy li gën a baax gën a tedd waaye nee na mooy al aslam mooy li gën a mucc moo tax ku aaju ci tariqa rek dama wax ni yooyu ma wax dafay lay daal di dab mooy yaa nga ca lu baax waaye mucc nga loolu ñu nga xam ne tey moom la joxoñ di tariqa di tasawuf te ñu aaju ci ñu ñëpp man ma tudd qaadir yi nisbatan ila cheikh abdul qadir jeyla nga tudd murid yi nisbatan ila cheikh ahmed bamba kee tudd tijani nisbatan ila cheikh ahmed tijani wa hakaza yooyu yëpp yi di benn malka bi moo tax maam Cheikh sa maam di wax na fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillahi walan yaxiida sawaun intama ila al jeylaani aw intama li ahmad al aw li siwahuma min al aqtab nga manduga tuddul ñaar yooyu ak ñeneen ñu mu tuddul ñu ne koon lu tax mu ne is kulluhum qataan ala sawab lii dama wax ni mënu ko fekk ci beneen yoon bu dul ci tasawuf jël ñëpp reconnaître leen jox leen garaat boo xam ni da nga koy xañ sax sa bopp jox leen ko ahlu tasawuf rek ñoo ko am maam alaaji malik si radiallahu taala anhu moom it feelu wal xulfu fi turuqi wal madahibi tabayunu al azwaqi wal masharib loolu dong la ne ku ne ba nga tànqee ci mbalkam seydina Muhammad ba naan da nga xaw a saalit ni ma dàqale waaye yëpp a neex mbalkam yi benn la mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ku nekk indi sa koog nag yett ko na nga ko gisee jox ka ka nga àndal ni ko am naanal sa naana waaye ngoog lii rek moo indi différence bi te du différence tur yi lay wax sa maam cheikh bu Mohamed Kunte it feelu leen mu ni muridana kun aabidan wa naasikan mustamsikan bi xablillahi albaani fala tumayizan wala tufariqan ibada rabbi alxalqi wal akwaani man qaala laa ilaha illa allah fa kun lahu awnan bila istizaan wax jàngoog ne koo dégg muy jëfandikoo baatu laa ilaha illallah sa mbokk la dimbale ko nekkal xaritam lu mu ne necc moom te bu ci xaar sama ndigal defe naa ma borom tam wax nan xasida bu mel noonu man raaytum faaxu yuxriju laa ilaha illallah kon kay mooy kooku sa mbokk la moom it gémmiñ buy wax laa ilaha illallah nee na kooku sa mbokk te mbokk nag yàlla nee dama ko fonk ba nga xam ne tur bi ko jox ci sama tur laa ko jëlee muy rahim yàlla mooy rahmaanu mooy rahim ci tur woowu ci la daggee nag lu ñuy wax bokk ni ku la jokk ma jokk ko ku la ma dog ko kon bu la sëñ bi nee gémmiñ buy wax laa ilaha illallah sa mbokk la kon yow amatoo amatoo amatoo lay ñëpp say mbokk lañu ñun ñëpp ay mbokk lañu ni ma ko waxee sànq. léegi ñu ñëw ci al jihaad bi ma maana bi mafhumihi suufi aw yu tasawufi jihaad bu ñu koy wax mooy maanaam nga jël sa bopp mbaa sa alal mbaa sa am-am jaay ko ngir yàlla jaay loola ngir am yàlla yàlla ni maa ngi lay xaar boo ma jaayee rek xam ni ku mat a jaay nga jaay danaa ko jënd mu wax ñu ci téere bu tedd ni inna allaha ashtara min al muminina anfusahum wa amwaalahum bi anna jan na yàlla ni àjjana ji ma am te wax leen la ca ne ak neexit ya ku ko bëgg jox ma sa alal jox ma sa bakket jihaada nga weesuwu loolu alal ak bakket la boo ma ko joxee ma jox la ko mais noo koy joxee noo koy joxee foofu la déggee nu tasawuf ñëw nan ngay joxee sa alal ak sa bopp maanaam naka ngay xuuse ci toolu jihaad sanq ci biir waxtaan wi ci ndorte li waxoon naa leen ni ci xare badar seydina muhammad alayhi salaam nee woon na jihaad bu mag dëgg-dëgg mooy jihaadu nafs xeex ak sa bakken kon ndeke jihaad bi ci dëgg-dëgg alal ji ci la waaye bakken bi bakken bi ci boppam nag mooy jihaad bi te loolu dafa nekk di loo xam ni lu mat a waajal la waaye lu mat a waxtaane la bakkan yàlla fonk na ko fonkeel boo xam ni nee na ku ko faat te tey ko sa kër mooy safara day wane ni kon yow nit ki nga xam ne sax bakkan bi yàlla nga ëmb ci sa jëmm ji amoo droit sax faat bakkan boobu mooy li ñuy wax xaru waxuma laa keneen ku dul yow yàlla rek moo ko moom waaye yàlla bu ko soxlaa nga war ko koo jox yàlla nag soxla naa bakken boobu ñu ni kon bakket boobu nga war a jox yàlla ci jihaad bi noo ko koy joxe ba tey dama lay delloo ci alxunya li taalibi tariqi alxaq bu Cheikh Abdul Qaadir Jeylaani ndax boo gisee may indi eh, tegtal yooyu ci waxtaan yooyu du dara lu dul mos naa ko wax tuubaa ci màggal yi paase man ne ñun ahlu tasawuf benn problème rek moo ñu dal mooy kullun yaqra'u nafsa kullun yaqra'u nafsa man maa ngi xool rek téere Cheikh Abdou Qadir Jilani Cheikh Sul al Kunti Cheikh bu Mohamed fa yem maam Cheikh ma nga ci téere maamam rek Sëriñ Tuuba mbokk mi si ma ngi ci téere sunu maam Alhaji Malick waaye lii kon lëkkaloo gi ak jëflante gi ak demante ak xamante gi kañ lay am foofu la mbir mi nekk atam def naa war na ma ñetti at ca Touba te keroog ñu jox ma fa kaddu ma amee loolu kaddu ñi nga xam ne yëpp ñooy doomi daara ya fa rot si woon te sëñ Bass recevoir woon ñu sa salle ba kon jot na tey maam Cheikh jazakallah xayran ci AIS bi nga créé li xidmati tasawuf loolu bokk na ci te yaakaar naa comité scientifique bi dana ci liggéey bu baax a baax fexe mbind mag ñi mu tasaaroo waxuma mu tasaaroo ci ñun taalibe murit waaye mu tasaaroo ci taalibe yëpp muy li maam borom Tuubaa li nga xam ne ahlul kunti yu bind na koy mu tasaaroo ci Touba tasaaroo ci Tiwaawan li maam Malik bind kazalika te foofu rek la ñuy mën noote ñi nga xam ne ñooy noonu diide Cheikh Abdou Qadir Jeylaani bi mu ñëwee ci ay bi ma wax ca nettali ga diggante Balqiis ak yonte yàlla Suleymaan inna al muluka ida daxalu qaryatan afsaduha wa jaalu ahliha adilla wa kadalika xam naa ku xaw a mel ni man dinga xalaat jihaadu nafs nu muy génne foofu daam fa la génne jëli nee na sa bakken ci boppam boo ko xañee li mu bëgg muy noflaay xañ ko li mu bëgg muy nelaw xañ ko li mu bëgg muy lépp loo xam ne rekk bànneex la nee na nga xañ ko bakken boo ko xañee dafay mel ni bakken dafa mel ni néeg bu fa nekkoon néeg boo xam ni dafa am yu fa nekkoon nga ñëw nag dugal fa mbaax yiw pas-pas bëgg nit ñi bëgg diine bëgg alquran bëgg seyduna muhammad bëgg mag ñu baax ñi yooyu yëpp nga dugal ko fa ba mu fees kon am na yoo fa fekkoon yoo fa fekkoon nag moom ngay tàmbali di génn di génne su ko defee ahlu tasawuf tënkaat ko ci beneen baat ñaari baat muy attaxalli wa taxalli kon yaa ngi génne ya fa nekkoon muy ñàkk pas-pas muy mbañeel muy kañaan muy noonoo muy bañ mag ñu baax ñi wan yàlla gannaaw naa sidna Muhammad gannaaw jox àdduna sa bopp yooyu nag moo fa dajaloo woon bi yële ñëwee nag xeex yi génne leen jëli foofu ngay déggee nag tafsir bi innal muluuka muluuk fii mooy lu baax lépp lu baax lépp loo xam ne pas-pas la isa daxalu qaryatan suñu tàbbee cib xol afsaduha dañuy fekk ña fa nekkoon te gënoon a tedd lool ñu def leen ay baadoo la wa jaalu aizata ahliha la ña fa nekkoon nekk fay buur nga xam ne yow doomu aadama moo taxoon xamoo woon sa bopp fu ne nga jëm fa yaa ngi ci dajale mbalitu àdduna yaa ngi ci noonoo yi yaa ngi ci kañaan yi yaa ngi ci lekk lu xaraam yooya dama wax ni ba yële ñëwee muy tarbiya gi nga xam ne moom la mag mi def ci yow bi mu ñëwee ci xol bi day bale yooyu fa nekk muy jaalu aizzata ahliha azilla ña fa newoon te nekkoon ay sang ci déggin ci waxin mooy ña fa nekkoon nga xam ne ñoo fa toogaloon seen bopp yàqal la yow nit nga yaakaar ni yow yaa ngi ci lu baax ñooñu tey dañuy daal di génn bu ñu génn nag nekk ñu torox bu ko defee kan mooy toog nag mooy jikko yu tedd yooyu ma la wax kon def nga li ñuy wax te xalli maanaam summeeku nga ci yooyu nga xam ne ñoo nekkoon ci sa biir xol waaye def nga li ñuy wax te xalli maanaam solaat nga mbubb mbaax moo tax boo génnee rek même boo waxul boo doxee rek ñu xam ni kii kii taalube la kii bi la ci comportement ci jikkoom ci jëfam mu mel ni loolu ñu ngi koy gën a déggee ci xadiis bi sayiduna muhammad alayhi salaam di wax ni ne masalul muminu masalul mumini kan nax la ne booy misaal jullit da nga koy misaal ci mbindeefu yàlla boobu muy tuddee an nax la muy yàmb nee na yamb dey jëmm ja tuuti na mbub ma it rëyul dëkkuwaay bi it amul solo waaye nee na ida akalat akalat tayiban wa ida wadaat wadaat tayiban wa ida waqaat ala uudin naxirin lam tukassiru ne yamb du lekk mukk lu salte kon yow it en tant que jullit en tant que taalibe fi la tasafu jëme mooy nga fexe ba lépp loo xam ne lewul nga wacc ko bàyyi ko isa akalat akalat tayiban fexeel ba looy lekk rek na set na sell suñu nee lekk nag da koy jël ci sens bu gën a yaatu lekk ci li jëm ci sa biir waaye lekk ci sa li jëm ci say xalaat loolu tamit lekkin la bul jël yépp xalaat jëlal lu baax gëm ko jëlal lu baax def ko sa pas-pas isa akalat akalat tayiban loolu mooy waral isa wadaat wadaat tayiban mooy waral soo xamante ni moom yamb dem na bay génne la mu lekkoon ku ne xam nañ lu baax la lu sell luy faj la lu am njariñ la ci dund mooy lem yow kon jullit boo defee noono ci wàllu tarbiya ba nga xam ni fexe nga ba looy jël day da nga koy sellal ba ci mbubb mi ngay sol ba ci dàll yi looy jël rek dafay sell moo taxit it boo génnee dara loolu dafay sell génne gi na koy génne mooy say kàddu na koy génne mooy say jëf sa melokaan sa relation loolu yëpp dafay daal di sell ndax yaa ngi nàmpe ci ween woo xam ni la nga fa nàmp yëpp dafa sell wal walbaladu tayibu yaxruju nabaatuhu bi izni rabbi mais war nga fexe yow taalibe bi yow bi nga xam ne yow la ñuy woowee ahlu tasawuf mbaa mu tasawif wala suufi lu ko yàlla defee war nga fexe ba foo toog bu jóge fa ku ñëw du ni accëm ku ñëw rek day màggal barab ba ndax na nga fa tooge woon kon lii boo ko delloo ci sens bu gën a yaatu da ngay fekk ni ndekete suufi bi ci boppam wala mutasawif bi ci boppam dafay nekk koo xam ni non seulement ku jullite lay doon ku téye alxuraan lay doon ku fonk diineem lay doon waaye ku fonk réewam lay doon it day am li ñuy wax nationalisme ndax xobbul watan min al ba nga xam ne lépp loo xam ni dafay gaañ société lépp luy gaañ njaboot lépp luy gaañ pénc mi yow di nga fexe ba loolu du jóge ci yow boo jëfee bu jóge fa ki nga xam ne sax waxoo moom bu ñëwee rek sa jëf jooju ak sa comportement bi mën na coo jubbanti moo tax islaam bi muy dugg ci sunu réew yi ba tey ñu koy jàng ñu koy tuddee islaamul aswad wala islam suufi islaam islam confrérique man ne alhamdulilah alhamdulilah ndax islam confrérique boo ko déggee rek mooy islam tasaamux wal mahaba wal mawadda islaamu salaam baat bi li ci boppam moom la tasawuf jël kon bu ñu nee fii ci sunu réew yi islaam bi fi dugg mooy islam la boo xam ne mag ñu baax ñi ñoo ko fi indi muy borom tarixa yi man kon gàcce ngaalaama ñooñu la nga cay dégge mooy bu dul l'islam bii rek beneen l'islam boo fekk du wax ni baaxul de waaye bii moo féete kaw ndax islaam benn la xanaa dégg nii rek la ñuy wax dégg nii rek lañuy ñuy wax looloo waral ci at yi ñu weesu bu ngeen daan déglu yenn waxtaankat yi nga xam ni dañoo déggul woon tasawuf mbaa xamuñu ko woon ndax xëy na nattu gu leen yàlla nattu ba ñu yaakaar ni baaxul booy màggal ñu naan bidaa la ngay gàmm ñu naan bidaa la ngay ziar ñu naan bidaa nga lal sa mbalaan wasifa ñu ne bidaa nga yor sa kurus ñu ne bidaa <laughs> waaw bidaa mais bidaa xasana ah bidaatun xasana ndax islaam kat du lépp la ñu juddoo fekk ko fi am na loo xam ne jamonoo koy wone suñu waxukaay yi tey ci jamono la ñëwee suñu appareil ndaw yi nga xam ne tey ka nekk bitim réew boo moytu ma ngi ñuy seetaan jamono ko indi loolu dafay delluwaat ci xadis bi yonent bi alayhi salaam waxoon ne inna allaha la yabaasu ala kulli rasi miati sanatin man yujaddidu laha diinaha li ci tëjdid bi la bokk mag ñi wax ni man googu man man googu man nee na lafz la boo xam ni dafay daf saalix lil fard wa lil jama yàlla dina yebal ci jamono ju nekk seekal bu nekk koo xam ni wala ñoo xam ni ñooy yeesalaat diine ji ñooñu koy yeesalaat nag dafa def ci bokk al muhaddisuun wal qura wal umara wa ñi ñëpp bi tadaafurihim wa bi taawunihim ci la diine di jëmee jamono ci lay ci lay ci lay euh, avancé donte musul la tardé waaye ci lay gën a yaatoo laa bëgg a wax bu fekkente ne jànkata alxuraan bi mu ngi gën di yeesal di gën di yeesal may toppatoo alxuraan na mu waree ci waqf yeeg ci njàngin weeg ci settantel geeg ci tadabbur weeg yooyu yëpp ki nga xam ne mooy jàngale xadiis di toppatoo xadis yi ci riwaayaat yeeg ixraaj bi taxrij beeg yooyu yëpp ki nga xam ne mooy jàngale fiq kazalika kii jàngale tasawuf kazalika man ñi ñëpp bu ñu àndee nag ki nga xam ni ñoom la yàlla jox kilifteen gi ci réew mi ñu saytu ñooñu nag yombalal leen yoon woo xam ne danañu mën a déggoo ba yombalal nit ki dégginam ci diine dama wax ni tajrid da ngoog kon haulaay kulluhum nu sammihim mujaddidin ñoo ñëpp ay mujaddidun waaye tey ñi nga xam ne ñoo ñu indil appareil yi tey li saalihil islam te islam rek tax dama dañ leen ciy boole kon ki la naan yow sa màggal gi mbaa sa gi mbaa sa wasifa mbaa kurus gi bidaala nekk ne ko bidaatun bu rafet la bidaa la boo xam ne gindi na ay nit bidaa la boo xam ne defar na ay nit bidaa la boo xam ne boole na ay bokk ñu nekk benn bidaa la xam ne dàq na fi xabaliya dàq fi mbañeel dàq fi li nga xam ne mooy onsuriya di xeebeel gi kii der bu ñuul la kii der bu nàngam la dama ni bii bi daa moo ko fi jëlee ndax mag ñi bi ñu fi ñëwee loolu lañ fi def kon yii yëpp dama ko indi ngir bëbësal maanaam tënk ci lu gàtt rek li nga xam ne mooy mafhum al jihad te ñu xam ni tey day jihad bi nga xam tey gis nañ ko ñuy jël ay bomb ak i ngànnaay di ko jubale ñoo xam ne ñu nga naan laa ilaha illallah da wax ni loolu tasawuf de moom bari un dañ na ci lool te mu ngi koy ŋàññ tasawuf li mu xam mooy xol boo xam ne dafa sell ni ma ko waxee ci taarif bi xol boo sell boo xam ne yàlla nga ciy fat te yàlla kat subhaanahu wa taala moo araamal faat kenn tuur deret lekk alal ju la lewul fëkk li ñuy wax nax bu yooyu yëpp yàlla daf ko xaraamal mag ñu baax ñi di ahlu tasaw ñëw tamit ni loolu yit ñun dañu koy woddu maanaam dañu koy ñag ñu ne nu ngeen koy ñage mu ni bi tarbiya yar jaboot gi rek ku yaru ku nekk doo jalgati kon damay delloo foofu li nga xam ne mooy al maanal eh, ma mafhumul eh, jihad fi fi maydaani at tasawuf wala fi tasawuf du dara lu dul jox yàlla la mu moom jox doomu aadama la moom waaye jox sa bopp li nga moom ndax ñetti relation yi rek moo fa am te bu ci nekk rek am na loola ca war ak loola ca warul su ko defee loolu dama koy tënk foofu di am mbégte lool delluwaat di leen gërëm di leen sant waaye di jéggalu yi ci lépp loo xam ne rek seen wën ngeen ko te xañ na mataluma ko ndax dama doon jéem rek ak a nuyoo ak ziyaar ak kàddu ziyaar laa koy laa koy tuddee ak ak ak nemmeeku ak mbégte it boo xam ne am naa ko tey bi mu wàccee ci suuf su tedd si yal na yàlla saxal li yal na ko yàlla saxal yal na ci yàlla sotti barke am na barke waaye yal na yàlla dolli ko ci ànd bi yàlla na lool bi jaahi rasul alayhi salaatu wa salaam allahumma salli ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi asalaamaaleykum wa rahmatullah noo ngi nuyu mbooloo mbokk yu teew yëpp noo ngi siyaare ñëpp ñu ngi ñaan ñëpp jàmm mm-hmm. jiital siyaar bi ak nuyoo bi sëñ bi Umar bi nga xam ne doon def waxtaan bu am solo fii euh, di ko siyaare bu baax di ko ndokkeel di ko daal jàmm ci këram di siyaare suñu mbokk mu baax moom Cheikh Mbacke bi nga xam moo jiite kuréel bi ñu tudd AIS mooy liggéey bu am solo euh, mbirum euh, tasawufu moom day lu mat a waxtaane day lu mat a xam ndax ko seetlu jamono yi toll xam ne li ko song dafa bari wet gu wet gu nekk am noonu jóge na fa ñëw di ko attaqué te mu sikki sàkk ne ci li gën ci diina ci la bokk tasawu lu am solo la li ci ëpp solo mooy ñu ci bokk te gëm ko te da ko toppatoo dañuy am kilifa waaw dañuy nangu ku leen wamal ak askan buñ na amee kilifa rek yomba yor yomba teg ci yoon waaye bu fekkente ne il kenn yëflu kenn lu neex waay def lu neex waay wax kooku dikkee lay coon day jafe damay wax toujours ne leen li ñuy wax printemps arabe mooy révolution bi amul ci temps euh, pays arabe yi la nekkoon sulli ko ak def ay manifestation ay ay ay fan ci mbedd yi waaye keroog ba Ali xam ne di génne wax na leen ne ñëpp delluwaat ci biir kër mbir mi nañ ko toppatoo te ku waxaat bi dañ gën dañ ko diggal ak yow keroog la ko fa fay waaye dëkk yi nga xam amuñu woon kilifa ñoom ca la réew ma dox takk ba léegi fitna fitna jàng fa kon askan kilif téew da ca am solo loolu nag moom bu ñu tëf indi ñoo nangu am kilif te nangu ko damay wax toujours ne am réew bu fekkee kilif te amu fa mu mel ne fas waxee danga ko war te amut làpp doo ko doo ko taxawal boo ko bëggee taxawal doo ko jàddal boo ko bëggee jàddal loolu moo daw suñu moo daw suñu bokk arab yi damay wax ne li fi génn ci école yi tasawuf bi li ñu def ci réew mi def ko ci développement amul fenn fu am ci ci ci li gën ci réew mi ñoom ñoo ko fi def li gën ci réew mi ñoo ko fi def bu dee développement rek ngay xool réew mi fu àgg tey ñoo ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko yóbbu bu xoolee côté démographie rek ngay xool dëkk bi ñu nekk te daawuñ ci ki ko sos ba mu toll nii mu toll dëkk bi téeméer rek nangu képp la am mel ni mel ki ko sos ci doom yi tasafu la ci daara tasafu la génn tariix yi nga gis ni ñu nosoo ni ñu jàppalantee ni ñu àndee ni ñu tegoo ci yoon ñi ko sos. ci daal di tëf la ngeen kon bu dee démocratie walla wala développement liñ ci def ci réew mi kenn def ko fi bu dee mbirum euh, même euh, investissement li ci defet def ko fi damay jël joxe message toujours nañ ala jili mbay ala jili mbay li def ci réew mi ci investissement néew na ko fi def euh, ci tas doomi tasafu la ku mel ne ala ñu ñu kebe li fi def ci réew mi néew na koo fi def moom itam ci tas la bokk jëlal sëriñ buub mii fi nekk tey waaw eh, ahlu tasawuf bokk bu dee côté média da jël eh, groupe wal fajri ki ko sos muy Sidi Lamine eh, ci ahlu tasawuf la bokk kon damay wax ne tasawuf tasawuf li si réew mi def ko néew na mënut am sax maanaam amut sax kenn ko fi ni def ko kon li gën ci li di topp kon li gën ci li di war a jàpp moom moom kon jot na sëkk ñu xamal ko nit ñi doon na sëkk ñi ci bokk gën a boole seen bopp comme ni ko sëñ bi dafa tey daa tax mbir mi gën a tax ndax ñu gën xamante li mu wax sànq ne dañuy jàng si dañuy jàng si du jàng feneen loolu moo ñu daal waaye lii nag day wane kon yaa ngi jàng feneen ñu loolu dañ ci góorgóorlu ba def ko baax a baax maam Cheikh Mbacke ñu ngi lay gën a bu baax baax ñu ngi topp say liggéey topp say toppatoo say say say say say jéego te muy la war ku ne sëñ Tuubaa sama am boo fonkee ñu war laa sant lii sëñ boo xam sànq ne tës jàmm lay indi dama koy leer dama koy dëgg gën a dëggal ci sëñ Tuubaa wax bi ko accusé na ko de da ngay préparé jihaad mimu ko daf ne wax nañ ngeen li ngeen jëfe ne mu lay jihaad mooy ngànnaay ak fetal ak këru man xeexuma loolu ini ujaadu bil hum bi toqaa daa fexe ba nit ñi xam daa fexe ba nit ñi ragal yàlla man ngànnaay loolu xam-xam ak ragal yàlla mooy ngànnaay mi xeexee kon tasafu seen kaa ne dëgg-dëgg seen jihaad mooy fexe ba nit ñi xam fexe ba nit ñi ragal yàlla fexe ba nit ñi ànd kon liggéey bi ëpp solo ci doomu dundu doomu aadama dimbali mën a mën a wam din ba mu ak ca boromam te suuf ñoo ko fi indi kon sëñ bi ñu ngi lay ndokkeel baax a baax di la ñaan jàmm di la ñaan yéen surtout <coughs> ñu ngi delloo sant baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, mbokk jullit yi ñoo ngi leen di nuyu euh, di leen ziyaara ci weeru tedd bu mag wi nga xam ne tey ñu ci fukki fukki fan yu mujj yi bés bii nekk bés bu am solo muy bésu laylatul xadr ñu ñëw fii tey ci Daaru Muxti ah, ñëwaat fi ñëwaat fi loolu nag dañ koy sante yàlla di jaar itam xalifa bi yi nga xam ne moo ci nekk di sëñ Abbas ak njaboot gi yépp ak mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaare ah, kàddu yi rek naa kàddu yu gàtt rek kàddu nuyoo ak kàddu mbégte ak cofeel waaye rek di wax ci sama kàddu ne euh, lii mooy senegaal euh, lii mooy senegaal mooy kër goo mën a dugg ci réew mi muy këru diine boo fa tegee sa tànk li ngay njëkk a bàyyi xel wala li ngay njëkk a gis mooy ne fa nga jóge ak fi nga ñëw doo yëg ne ñaar la waaye da yëg ne benn la loolu nag firnde biñ ci joxe mooy ne mag moo mën a jël ci magu réew mi mag moo ci mën a jël laa wax euh, fam ganee àdduna bokkut ak fam génnee àdduna ñoom ñépp dañoo àndoon di wër yàlla di jàng di liggéey di jaamu yàlla yar njaboot bi ci loolu nàmbatal leen ci loolu ba xëy jógee fi njaboot gi itam tënku ci loolu kon li arab yi do ak taarix yonay du nas la amoon démb kër goo demit boo demit loolu moo fa ne parce que ku nekk euh, gëm nga ne la nga doon muy sa ndono euh, rus nga daje kilifa gi ëllëg yomal xiyaam mu lay laaj lenn ci lam la dénkoon nga am loo ci yokk lu bokkut ak lam la dénkoon te ñun ñëpp loolu ñu koy bàyyi xel ba tax na tey li jamono indi xëy na jafe na métti na waaye boo tënkoo ci alxuraan ak sunna rek da ngay gis ne li jamono lu jamono mën a indi rek loolu lu mu rëy rëy rek da ngay gis ne doye du nekk lu jafe ndax ku ne xam na ne barki démb rek maa ngi koy waxtaanee maam seex Mbacke ma ne ko am na lu ñaan jàng ci téere yi jafe woon na loolu ñu dégg ko waaye tey jamono firil nañu ko lu ñu tuddee al awlama mondialisation loolu boo ko daan jàng ñu lay wax ne àdduna bi dafa mel ni benn kër la ñu ne ci biir kër yi ku ci nekk néeg ba mu ne keneen ki ci néeg bi mu ngi koy séen te xamul ne mu ngi koy gis loolu bi ñu koy jàng jafewoon loolu ñu dégg ko waaye tey def naa ne ku xool internet wax boobu firi na ko waaye nag loolu jullit ñi dama gëm ne dañ cee war profité ndax yàlla suñu borom waxoon na leen ko ci alxuraan na innamal mu'minuuna ixwa te ixwa boobu uxwa islaamiya boobu jullit ñi dañ ko war a euh, gën a bàyyi xel ndax xam nga ne mbokk yi civilisation yi amoon ci at mi yëpp daanu na lu ñuy tuddee capitalisme daanu na lu ñu tuddee socialisme daanu na tey l'islam moo fi ne ak lu ñu tuddee capitalisme te ñoom ñëpp l'islam la ñuy joxoñ te jàpp nañ ne l'islam bi bu taxawee bu dëgëree ñoom seen ay intérêt dafay daanu seen ay intérêt dafay menacé kon war na ci ñun jullit yi ñu ànd booloo nekkaat benn xam ne ñii nga xam ne ñooy noonu l'islam tey li leen yitteel mooy fexe l'islam ñu tër ko rendi ko maal amal asaf loolu xam nañ ne mos am ndax diine ji kat yàlla suñu borom moo koy sàmmal boppam te mag ñi itam damay wax ne mag moo mën a dem ci këram daanaka ñetti principe rek la amoon mooy jàng liggéey ak jaamu yàlla kër goo fi mën a dem mag moo mën a dem ci këram ñetti yooyu rek nga fay fekk jàng liggéey ak jaamu yàlla ñu yar ci njaboot bi nàmpatal leen ci te defe naa ne loolu képp koo xam ne sukkandiku nga ci ëllëg boo dajee sa mag moomu donc doo doo doo am kersa Euh, ci loolu nag ay AIS ci liggéey boobu la nekk euh, di ci taxaw di ci yeewaat xale yi nga xam ne ñooy génération bu mujj bi nga xam ne xëy na lu bari xamuñu ko sëñ maam Cheikh Mbacke ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci kuréel yëpp nekk ci liggéey boobu euh, mu nekk liggéey bu am solo waaye itam di ndokkeel waa Wafa ndax ñoom itam ñu ngi liggéey liggéey bu am solo boo xam ne àdduna yëpp teg nañ ci seen bër te defe naa ne lii mooy ndono waaw ndax tey maam Thierno Ibrahim Mbacke borom daaru defe naa ne tey bu ñëwaatoon gis njabootam dana am mbégte lool xam ne lam leen santoon génnuñu ci ñu ngi ci te lool lii firnde la ci loolu kon du ñu guddal ñu ngi leen di sant di leen gërëm euh, di leen ndokkeel ci bés bu tedd bi nga xam ne mooy bésul laylatul xadri salaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw mi muy yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi waxaat yàlla allahumma lakal hamdu hamdan kasiran euh, li tax ñu wax lu mel noonu mooy Euh, dañoo ñaan yàlla suñu borom na wa la daaw ci heure bii kóllëre gi nga xam ne moom lañ fasanteeg Al Wafa di muassasa bu mag bii nga xam ne euh, dañuy xamal nit ki nan la war a mën a def ba jaamu yàlla boromam waaye teg ko ci yoon woo xam ne dana ci jaar ba am xam-xam ngir mën a xam na ko yàlla suñu borom subhanahu digale ndax nit ki bala ngay mën a jaamu yàlla da ngay xam ni yàlla digle pare arifuni qabla an ta'buduni loolu yaakaar naa ñëpp dégg kon Al nekk ci jéego yooyu di ci dox ba amanteek ñun muy kuréel gii nga xam mooy aljamia islami li xidmat tasawu aay AIS kóllëre goo xam ne euh, depuis daaw jég lañ ko commencé chaque année ñu wooñu ngir ñu ñëw indi kenn ci euh, kilifa diine yi te bokk ci réew mi ñu indi leen ngir ñu mën a ñëw penc mañ jógee ñu mën fa indi njàng ma fa nekk te sell ngir mën koo mën a wisaare ngir ñëpp mën cee jote tey alhamdulilahi rabbil alamin ñu indi sëñ bu Mouhamad Kunta mii toog nga xam ne moo doon def waxtaan wi léegi xëy na gàttaay bi la wax waaye waxtaan wu tënk la woo xam ne leeral na mu jihaad ci lu gàtt rek ndax mooy xeex sa bakkan rek leeral na ko ci leer nañ leeral na tamit ne tasawuf seen kuddu jàmm la ràcc kenn du leen dégg ci lenn loo xam ne dana nuru violence wala muy nuru boddi konte kon sëñ bu Mouhamad mi nga xam ne ànd nañ ak moom wax dëgg yàlla ci xam-xam bi nga xam ne moo fi wane ak fa mu pàkk ba mu laab ba mu jógee loolu wax dëgg yàlla ñu ngi ko ci sant bu baax di ñaan yàlla suma wa ta'ala lépp lu mu fi wax yàlla nañu ko jariñoo di nuyu sëñ Abdou Samad Mbacké mi nga xam ne macha allah mooy kilifa jotaay bi di imaam fii ci penc mi te wax dëgg yàlla macha allah chaque année ñu ñëw di ko fekk mu ànd ak ñun jataay bi ñu ko ñuy di ko ziare di jël ba mu tegal ñu ko loxol xalifa bi sëñ Abbas yàlla fi yàgg te wér sëñ Abbas jot li ñu ko sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér ak ñoom ñëpp xam Euh, sëñ Babacar si jaamal mi doon wax léegi di di di coordinateur bu laa Layes ànd ak sëriñ Mohamed Kunta mi nga xam ne alhaaji Mohamed Kunta ànd ci délégation ñëpp ñëw teew mu mel ne kon tey daf mel ne Daaru Muxti tey ñetti tarixa yi mag yi gën a nekk Sénégal te ñu xam leen te mul at tijaaniya wal qadiri wal muridiya mën na wax ne ngoonu tey gi daje nañ fi ndax sëñ Babacar Cissé jaamal la sëñ jaamal mi ngi euh, jàppandiku ci càll la euh, Cheikh Ahmad Tidiane sëñ Mbukunta mii toog macha allah mi ngi jàpp càll rek Cheikh Abdou Khadir Jeylaani ñun ñuy toog ñu jàpp càll rek sëriñ Touba Mbacke Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasul kon mel na kon lii mooy tey Sénégal eh, li muy gàtt gàtt lépp fexe nañ ba ñett yëpp daje te kenn ku ne ñoom ñii laay waxal sax ñoom muy sëñ Mbukunta Ndiassane mi ak sëñ Babacar Cissé kenn ku ne kilifa nga ca tarix ba nga nekk kon lii mooy taarub Sénégal ci lii la AIS di taxaw ngir bëgg a jegele ngir bëgg jàmmale ngir xam ne bala ñu mën a dund suñu diine faaw jàmm daa mën am ndax yonent yàlla Ibrahima kat ba muy ñaan yàlla subhaanahu wa ta'ala ca Makka kenn ku ne xam ne yàlla da ko yónni pour mu leeral imaan pour mu wan nit ñi nan lañu mën a wéetale yàlla waaye avant mu ñaan yàlla dara dane allahumma rabbi ja'al hadal balada aminan doo ko tocc rek wasim nii doog caa teg lam ci teg lam njëkk ñaan mooy yàlla dëkk bii nga ma yónni bala ma fi wax lenn genn kàddu gu ji yow maa ngi lay ñaan nga defal ma fi sécurité pare nga defal ma kaaraange pare ndax kaaraange googu mooy tax ñu mën a jaamu jàkkee mën a fees fépp mën a fees tey dëkk yi nga xam ne lislaam nekk na fi yëpp te amuñu jàmm tey kenn mënta jaamu yàlla am na ñoo xam ne dematuñu jàkk ji ndax jàpp nañ bu ñu bala ñoo mën a jaam bala mën a def lenn faw ñu saytu jàmm jooju te gis nañu jàmm li ko mën a saytu mooy àndandoo di yëglante di demonoo di booloo nekk jamaa loolu mooy mën indi kere jàmm maanaam yàlla subhanahu wa ta'ala bii ci pàkk bu laab bii pàkk maam Cerno Ibrahim mi nga xam ne suñ Tuubaa gërëm na lépp bu ngeen ñu gëna a ñaanal ci kuréel googu li ngeen bëgg li ñu bëgg lépp dana ko am ñun daal ñoo leen nekkal ci frontières yi fas yéene taxaw képp ku bëgg a xaw yi tasawuf wala mu bëgg saboté liggéey mag ñu baax ñi AIS taxaw na di leen karkaral mu mel ne ñu nekk ci ribaat ñu nekk ci xuduud yi nekk ci frontières yi ngir taxaw bañ ñooñu ak si jàkk ji kon yéen ñu nekkal fii ñu nekk leen ci saxaba hmm. li ñuy jeexal nag ci kàddu yi mooy thème bu am solo moom lañ jëloon mu mafhumul jihaad mooy concept de jihaad ci ci ci ci njàngaleem tasawuf ndax yeneen écoles yi boo dem euh, nañuy dégg nañuy digle jihaad ak nañ ko jàppee bind ko seen téere daanaka mooy violence mooy euh, jullit bi sa xammi ko ashhadu an ashhadu muhammadar rasulullah dem nañ ba dugg ci néegi jàkka yi di fa tafjiir def attentat di rey ña fa nekk loolu nag jotiwut ak diine dara loolu gis ngeen fan yi Sénégal cawul terroriste yu ngeen dégg ñun jàpp ñoo xam dem nañ ba nangu ba reconnaître ne ñun ay terroriste lañ am nañu ko wax am na ñoo xam dem nañ ba ne ci jàkkee nangam fa la ñu fa la ñu defal tatarruf bi ñu nekkee loolu nag alhamdulillahi rabbil alamin ba dégg ñu ci tasaw li jamono ñu rax-rax ak tubaab yi ak noon yi lislaam yi li ñu mën a jaxase lislaam lépp ak di leen tuumaal mosuñu tuumaal tuumaal tuumaal école suufi école suufi kenn mosu leen tuumaal te dara wëralu ko lu dul jihaad nafs bi ñu jël mooy bi nga doon jàngale yenn tasanaas bi ñu jógee xar bi mu ne dana nañ ci jihaad bu ndaw te boo xam ne ña ngay reyante di tuur deret mun a jihaad bu ndaw saxaaba yi sax comprendre mu ne waaye ba mu leen ba taxaabee ne tekk mu ne jihaat bi ñu ma nag mooy jihaatu nafs te mooy jihaat bi ak akbar bi gën a mag kon loolu la Serigne Touba doon dund Serigne Bou Kounta Ndiassane Cheikh Abdou Khadir Diané doon ko dund Cheikh Amadou Diané ko dund seen jihaat mooy nafsu bakkan euh, dafa nekk koo xam dafa am ñetti noonu yu koy jàppale muy seytaane muy hawa muy àdduna ñett yi dañ koy jàppale te ñett yi amul benn boo ci gis ñu yow nag bu fekkee dafa am ñetti noonu yoo xam ne dañ lay song attaqué la te gisoo leen euh, nga war a jàmmaar na ba tër leen tërëgoo leen ne damay dem wuti beneen koo xam moom laay jaxaatal mm. loolu sëñ bi du xel sa morom doomu aadama kenn kenn la ne faw da ko war a dugal àjjana wala faw da nga ko war a mën a déedéet xuu am fusukum la wax bala ngay fegal kenn xuu am fusukum la wax fegal leen seen bopp sa a pare kon yow wóorugu ne mucc nga ñett saytaane muccagoo ci xawa muccagoo ci duniyaa muccagoo ci nga bëgg ne kon mën naa bàyyi ñooñ dem muccal nit ndax lan nit ki nee nga day bokkaal day shirk ndax lan nee nga ab yéefar la nga ne naa ko naa jihaat ak moom rey ko teew sa nat ñetti noonu yi la yàlla subhanahu wa ta'ala wax ne nanga leen moytu defu googu kon loolu dum xel moo tax mu tasawifu ne xam ne ñetti noonu yu mat lañ muy seytaane muy hawa muy ah, muy muy ak ak bànneex ah, ak dunia bokk ñu ne xam ne ñii ñooy songu nafsu ñu ne kon nañ taxaw jàmmaar yooyu ba tër leen te ba may wax yow ba léegi nag tëraguñ leen moo tax mu tasawifu ne saa su ne dañ lay gën a sóob ne la gën leen a moytu dina teg ci yoon ba keroog sa ngay ngay ngay ngay wàcc liggéey ndax ñii kenn du naagu ci ñoom la ta'munu makaayida sheytaane qabla firaaqi ruuhi lil abdaan loolu suñu ci waxoon bu leen wóolu mukk ne mucc ngeen ci pexem sheytaane li fekk dugg leen dugg leen di kon nit ki bu jegee ne bërët ne man a jihaad damaa war a indi nangam te yow ñetti noonu kon day mel ne da ngay naagu day mel ne naagu nga day mel ne yow léegi mucc nga ci seytaane day mel mucc nga ci sa bànneex mu ne mucc nga ne te yooyu nag wax dëgg yàlla dañuy lënkaloog doomu aadama keroog muy faatu yon tas na ci xadis ne boo demee ba xer-xerloo day ñëw foofu sax taxaw ngir bëgg la tubbiloo kon mag ñi loolu lañ xamoon moo tax ñu jël seen dund gépp fas yéene ko def ci jihaatu nafs jihaatu nafs bi ñu def ko ci ngir di jihaat ak moom di xeex ak moom ba keroog yàlla subhanahu wa ta'ala di leen yëkkati mel na yoon woo ñu tegaloon kon alhamdulillahi rabbil alamin ñun day ci wen ci neem sekk bi terrorisme xewee violence xew tubaab yi attaqué l'islam gis nañu tasaw bokkuñu ci kon ñun yoon wu ñu tegaloon rek moo yoonu dëgg kon ñu ngi woo képp kuy mutasawwif képp ko xam sax laay wax nga dellusiwaat ci école suufi eh, jàngaat seen njàngat ci wàllu jihaat boo ko defee da nga mucc ci tuuma doo taxaw naan dañoo ciblé imam doo taxaw naan dañoo ciblé dañoo def nangam déedéet doo ko def mukk ndax mosuñoo gis kenn ku nekk ci jàkkay mutasawwifun dafa imam dafa xutba ñu ñëw jàpp ko ne terroriste lay wax déedéet du ma sàmm parce que duñ ko def seen mën hëj seen méthode bi ñuy jàngale jaarut yoon woowu fa mu jaar mooy moytuñu ko nit ñi seytaane moytuñu àdduna loolu kese la kon daal loolu moo taxoon ñu ne insha allahu rabbi thème bi ren moom la AIS jël alhamdulillahi rabbil bi nga xam ne sëñ bu Mouhamed Kunta traité na ko ci anam ba gën a leer gën a rafet di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala suñu këllëri gi nga xam ne amoon nañ ko al wafa yàlla na ko yàlla mottali chaque année insha allah rabbi ñu fas yéene ñëw ànd ak yéen indi leen borom xam-xam boo xam ci tarixa lay jógee ñu ñëw ñu xam ne l'islam bépp benn ni mu ko waxee léegi fa kullu wirdin yuridul murida li hadrat la wala njahida sa intama ili ji intama dafa tijaan ba mu jeex loolu suñu tubaa waxoon kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen baalu àq di leen baalu àq di leen ziyaara tamit ci bisu leer xadr gu tedd gi ci lañ nekk na ko innahu li mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci weer wu tedd wi di leen ndokkeel di ñaanal suñu kilifa yi diine yàlla yàggal leen fi loolu te ànd ak yàlla nangu suñu jaam yàlla ci jéggal ñu suñu bàkkaar Cheikh bu Mouhamed Kunta ñu ngi lay nuyu ci turu muassasatul wafa bi xuquqil iman di la sant cant boo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem yaa kilifa yu tedd yi nga àndal ci jataay bi te ñu présenté leen léegi ñu yëkkati ay kàddu ñu ngi leen di sant cant boo xam ne turu muassasa bépp am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem sant it kilifa jataay bi muy Cheikh Abdou Samad Mbacké moom Cheikh Mahmoud Xobal ñaanal ku mu yàgg si loolu te ànd ak waxtaan wi bàyyi guñ ko bàyyi xel tax na laaj yi bari na lool waaye xataag waxtu wi moo tax mu tànn ko <clears throat> jukki ci lu man benn mbokk mi dana laaj jihaadu nafs mooy lan ak ndax yonent bi salam moo ko jàngale euh, jërëjëf defe naa ni euh, ci commentaire bi nga xam ne maam Cheikh def na ko léegi tontuwaate na laaj bi jihaadu nafs mooy xeex ak yooyu nga xam ne yëpp day tax nit ki du jubóog boroomam te mooy àdduna mooy seytaane mooy bànneex loolu boo fexee ba jàmmaarloo ñoom yaa ngi ci jihaadu nafs mooy xeex ak sa bakken daal ndax bakken dafa bëgg noflaay bëgg lu yomb bëgg loo xam ne daal dalay dalay delloo gannaaw te Iblis la mu waxoon ni yàlla say sa jaam yi duma dañ di leen di leen di leen di leen xëcc ba génn leen ci njub yóbbu leen ci réer ñu ni fa nga yem mu ni déedéet duma ci yem de du dañ di leen xëcc ba ëllëg ma tàbbalee safara nga war a xeex ak iblis moomu nag loolu doo nga mooy jihaadu nafs ni ko yàlla def jazakallahu xayran ndeysaan leer na lool defe naa noonu ko Serigne Abdou Samane Mbacke waxee nga waxee ko noonu kilifa yu tedd yi wax ko noonu sunu mag ñu baax ñi tam waxee nañ ci noonu ku mel ni sëñ Moussa Ka radiyallahu taala anhu wax na ci lu mel noonu day wax ni déglul ma wax la lay jikkoy rijaal ya ya bamba way ca xuqa xuqa way la xuqal buka wa ala sadaati amwaati te kii la araadi alayhim ka samawaati moo tax mu ni déglul ma wax la lay jikkoy rijaal ya ya bamba way ca xuqa xuqa way la man ñooña laa ñee zahiran wa batinan ñëwuma kenn ngeen alal ci àddina daawuñu fuukaréew jigéen ak i alal sàkkantumaag wataak tabax yu defi lal fi suuf lañuy fanaan di ñaan di julli daawuñ nelaw guddi ba jant jolli daanañu jàng alxuraan tey wérd di jàng taalif ya di tagg fërdu daanañu jàng alxuraan tey wérd di jàng taalif ya di tagg fërdu wa kullu wirdin yuridul murida li xadaratillahi wala nihir waaw daanañu am xam-xamu sharia booleeg xaqiqatu te am tarixa daan am sharia am xaqiqa boole ko tarixa daawuñu fab dërëm di def ci banque waaye luñ mas am jébbal waa waa Mbàkke waaw ku ca mas am soxla te amoo ko doo yëg lu dul gaa booloo jox la ko nga xam ne ku ca mas a am soxla su la jaaxal sax ñoom ñoo yëg seen bopp dajale seen bopp ñëw fekk la seg jafe-jafe say bëri xong ñëw fajal la aajo ji loolu yoon ci lañ nekkoon ko waxee te sëriñ bi wax ko ni inni ujahidu bil ulumi wa tuqa abdan xadiman xa jihaadam bépp mooy ci xam-xam jihaadam bépp mooy ci ragal yàlla ndax inna akramakum indallahi atqakum mel ni tasawuf kon mbir la moo xam ne ni ko sëñ Tuubaa jàngalee rek bu islam bu doon jëmm jun mën a misaal islaam imaan islaam ihsaan iman day mel ni ruux gi islaam mel ni jëmm ji waaye ihsaan nag mel ni yére yi nga xamante ni moom la jëmm ji waaja ba bu génnee mënees koo xool kon tasawuf day lu am solo loo xamante ni kenn mënu koo euh, desal gannaaw waaye ku bëgg a jàll itam faaw nga bàyyi ko xel mbokk mi da doon laaj ndax ndax am na sufiyanke bu mas xeex jihaad xeexu ngànnaay ci xeeti ahlu sufi waaw loolu de <clears throat> boo demee ci réewu naar yi da nga ko fa fekk ay suuf yàgg yoo xam ni eh, yàgg nañoo xeexal diine xeexal seen réew bokk na ci Mohamed Mokhtar ci Libye bokk na ci Abdul Qadir al Jazairi ak zawaya ya nga xam ne ñu ngeen foofu ci saxaraa bi nekkoon na làqukaay ak xeexukaay yoo xam ne ñoo daan jàmmaloo ak tubaab yi surtout fu mel ni Algérie nga xam ne seen indépendance dafa metti woon lool zawiya yooyu ñoo doon former xeexkat yi ñuy dem ci ci ci front ba waaye ànd ak seen diine ak seen pas-pas ak seen gëm ndax xamoon nañ ni tubaab yi bu ñu fa amee doole rek danañ nasaxal diine kon loolu moom am na bu baax a baax a baax waaye bu dee fii ci sunu Sénégal nag li nga wax rek ci sunu maam borom Tuubaa rek moom bil bil ulum yoo tuqa te loolu mooy lépp nag ndax jamono ju nekk la mu laaj te loolu lañ doon loolu mooy xam-xam ak defar nit ki rek ba mu jubóog boromam ne moom ci loolu lañ jihaad tam ak ci loolu lañ jihaad yoon moo tax it yàlla jox leen lu mu jeexul kenn yàlla ni dafa wax àdduna ni àdduna mm. ixdimi man xadamani mm. wastaxdimi man xadamaki mm. ba ñu joxee seen bopp yàlla nag yàlla tàggata leen àdduna leen lu ñu soxla yow àdduna nekkal seen jàmm mm-hmm. ñun ñi nga xam ne nag dañoo jox suñu bopp àdduna gis nga lu ñu dal ñuy dang dangi guddeeg bëccëg rek mm-hmm. <laughs> ndeysaan jërëjëf leer na kaanu ibadan bi taatin li rabbihimu wa kaana jalla lahum bi minnati dañoo féete woon yàlla ci topp rek yàlla féete leen ci ay xéewal yu bëree bëri cheikh bu Mouhamed Kounta jazakallahu xayran yàlla yàlla guddal sa fante te wéral sa yaram yaag ñi nga àddal ñëpp ñu fàttali mbokk yëpp ni waxtaan wi képp kum raw boo dégloo rajo yi nga xam ne moom lay bëgg lim da nga ko dégg muy Daaru Muxti FM en la ko def ak Ñaaxeen Touba Mbacké FM RTS Walf Fadjri FM eh, ak rajo yi nekk ci diwaan bi yëpp dañ ko jàllale bu dee ci wàllu télévision yi Touba TV dana ko jàllale Lamp Fall TV ak Touba Vision yooyu yëpp danañ ko jàll en direct lañ ko def Touba Vision bu dee site internet itam site yu bëri su ngeen ci demee di ngeen ci fekk waxtaan wi